saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Ama Baldé ma sunu lamb ñëwaat ci moom ak la mu jot a encaissé ci digganteem ak Modou Lo moom Ama Baldé moom la sunu lamb dippe le plus riche de la saison 2019 2020 saison bii ñu nekk te corona bi womat ñu génn ñu ko par force Ama Baldé mooy mbër ma ca gën a la ko waral du lenn lu dul ñaar fukki millions ak juróom ya mu jot journal ba xam le ne moom Ama Baldé jot na 25 ci lamb ji moom képp ci jot avancé moom Zil Baldé laataa corona di la yore ak mbuusam daal di dem ñu duyal ko ci 25 millions ba mu fees muy xaar luy laata corona di yegg si moom sël bu ndaw encaissé na ba toog loolee moo waral journal ba ne xaw ku doxlewut waaye Ama Baldé moom doxle na ka doxlewut kay mooy Baye Ndiaye rakku Aziz Ndiaye ba doon xaar fee de pour dellu siwaat bu nu fàtte ne ci saison bii ñu génn 31 juillet la tëggoon diggante Lac de Guiers ak Boy Niang 2 bu dee moom Baye Ndiaye dafa jàppoon ne dina dellu siwaat ci mois de juillet ngir tëggaat beneen combat it corona nee a nangu ci digganteem ak Quench wala Diène Kairé jógee ci defetam ak Garga Mbossé jógee ci defetam ak Moussa Ndoye jógee ci defetam ak Sa Thiès ban adversaire moo koy xaar bu ko dàq digganteem ak Diène Kaïré loolu tuq su bënn foofu mooy lacrose loolee mooy yoonu làmbam soit mu jox Modou Anta revanche wala mu jël gone yi diggante Quench ak Diène Kaïré kum ci jël làmb ju neex lay doon beneen combat ba war a neex Serigne Modou ñaa taxawal na ko mooy dox ci diggante Batista ak Aline Mbaye Nder bu dee Batista bu taay si nga moom ci situation bu metti la nekk moom année blanche ak défaite la tegale Libidor bu Ngunjaan moo ko mujjee daan le 21 juillet 2018 bu dee Aline Mbaye Nder bu benn barak moom ci victoire la toog Maurice Diouf bu bi la daan le mars kan mooy daan ngir relancer waat loolu mooy point d'interrogation ba en ba des mooy sunu papa Serigne Modou Niang taxawal na bile combat di xaar corona bu nu jàllee ca Ngéylum coach école de lutte Mor moom combat bu neex bu logique ba ko teree nelaw moom la xëy jox waa sunu làmb Ngéylum ban combat nga gis mu ne diggante Eumeu Sène ak Gouye loolu dara gënu ko bu logique la ba logique mooy diggante rëg-rëg ak tafaatin wala rëg-rëg ak Malick Niang kàddu yi ku ko ba rëg-rëg rëg-rëg dañ tàppet loolu mooy kàdduy super étoile jërë ngeen jëf mbokk yi moo nekkoon li gën a fas ci ëtt yenn kaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah